Salut les amis de eSport TV, merci encore gars, de la confiance dans nous voler, merci loué du like, merci loué di abonné, merci également du bàyyi seen commentaire Hein. di ko wax saa su nekk rek képp ku feebar suñu borom yàlla na fëgg sa bopp nga wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi fàttewuñu leen benn yoon de dëddu àdduna suñu borom xaar à dire firdawsi ñi ak également ci kaso yi suñu borom génn leen fa gaay di wax également on avance ensemble mbokki sénégalais fépp foo leen mënti Sénégal Afrique Europe États-Unis Asie ñëpp si on avance ensemble donc actualité bi gars on va parler aujourd'hui ci Aliou Cissé bi nga xam na déclaration jëm ci li nga xam mooy binationaux yi bi nga aujourd'hui aujourd'hui mi ratisser large Mingi ngi aussi nan lay pour améliorer équipe bi l'équipe nationale du Sénégal en sachant que y gars coupe du monde bi ñëw presque mois de novembre mais avant aussi il y a les éliminatoires yi nga xamné mo jëm ci ah, coupe d'Afrique boo xam dañ ko a sóoraale également 2023 bi et tout donc Sénégal aujourd'hui bu jugee ci coupe du monde rek dafa am aussi yooyu nañ jongante yoo xam da koy xaar ñi ngi wax aussi match amical entre autres di wax aussi joueurs yi nga xam ne ñi ngi évoluer ñenn ñi amul temps de jeu gën a am temps de jeu ñenn ñi nga xam également ñi ngi performer suñu borom lafa leen si cat suñu joueurs yi nga xam dañoo blessé ñu ñëw aussi pour un peu rejoindre l'équipe nationale du Sénégal et gars cette fois-ci on va parler de deux joueurs yoo xam sénégalais ñi ngi leen di wax di Sofiane Diop et Boubacar Kamara Aliou Cissé s'est prononcé wax na ci yi nga xam ne Sofiane Diop wax ci aussi si nga xam ne ci Boubacar Kamara pour le cas de Sofiane Diop Aliou a été très clair Néna mom, moom na fi Sofiane Diop il l'a appelé waxtaan ak mom, benn moment aussi dama koy baye, mom mu jël décision jël temps am xalaatal boppam la décision mom moko wara jël ak ay wajuram, donc eh, Aliou c'est ce qu'il a dit Aliou aujourd'hui nek ci benn logique bo xamné pour man c'est une bonne logique une bonne dynamique moy que ne tey équipe bam yorna na groupe am aujourd'hui quoi qu'on puisse dire dafa liguer depuis 2015 pour am benn ossature par rapport équipe bi normalement que c'est vrai que ne bokk pour ñëpp Amna ay manquements ndax personne n'est parfait amul kenn ko mat équipe day am ay manquements que mom aussi mi ngi xol ñi nga xamné ne mën nañ ci apporter dara mais Aliou c'est aujourd'hui ak également aura bi am du mom moy dem si kanam si yenn joueur yi il a parlé avec Sofiane Diop Sofiane Diop mi nga xamné aujourd'hui gars il a la possibilité de jouer pour trois pays amna possibilité de jouer ci de ñetti deuk muy Sénégal du Maroc, du France. Et pour l'instant, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, pour être franchement franc avec vous, pour être honnêtement honnête avec vous, gars, donc, qui nga Sofiane Diop xelam nekkagul ci Sénégal mi ngi équipe nationale de France Qui nga xam aussi mooy Boubacar Camara aussi Aliou Cissé am na benn euh, yoon ak benn taxawaay amené xam ne ko ci mais pour le cas de Sofiane Diop lu mané, pour Sofiane Diop pour moom xelam France nekk parce qu'aujourd'hui, Sofiane Diop danaan man xale là, je suis jeune moom déjà mi ngi joué avec équipe nationale espoir et génération am na intégrer intégré nañ déjà équipe nationale A bi mi ngi naan pourquoi may précipité où naa jël sama temps France mën na et en plus jeune là mën naa dem ci club ñëw bokk ci nga ñoo équipe nationale de France. parce que aussi tey Sofiane Diop moom euh, peut-être jàpp na ne France mon moo nekk ci xolam parce que quoi qu'on ou également qu'on puisse dire mon fa la fa la faut le judo c'est vrai que ne papam sénégalais la yayam, marocain la pour bañ frustrer sénégalais yi bañ frustrer marocains yi wala bañ frustrer papam ak yaayam na jël décision ne de jouer pour équipe de France peut-être loolu mooy logique mais aussi les moments où wax rek mooy que Sénégal aujourd'hui à l'heure où euh, où vont les choses et au vu de la situation actuelle Sénégal actuellement am le lu bëri lu a apporter Sofiane Diop tant sur le plan aura moi que boo équipe nationale de jouer qui compétition yu mag ñu lay valeur marchande de York mais aussi d'aller permettre nga gagner au mature gën au gaaw mûr également développer au gis nañ joueurs yi nga xam équipe nationale du Sénégal l'exemple le plus présent ou bien le plus récent mooy Pape Alassane Gueye ba mu jógee Coupe d'Afrique Afrique ba léegi dem ca France Gueye macha Pape Alassane Gueye mi ngi ci un niveau maintenant pour man le meilleur wax clair on a besoin de Sofiane Diop d'ailleurs ailleurs dinaa une une vidéo on va ne wax lan la Sofiane Diop mën a apporter l'équipe nationale du Sénégal à fan la télé par rapport à tey li Sénégal de jouer parce qu'il n'est pas forcément également un joueur parfait Sofiane Diop mais à l'instant T Aliou Cissé moom wax na ko nee ànd ak Sofiane Diop légui nak da koy bàyyi moom ak ay ñu jël ay décision am Aliou Cissé mom waxna deug mom moom ay el tactico moy champion d'Afrique moy yobu Sénégal deux fois coupe d'Afrique, euh coupe du monde plutôt donc mom il n'a rien à na voilà di di jéem a wala dara wala di jëm a dara Sofiane Diop s'il veut venir il va venir s'il ne veut pas venir il ne va pas venir et ce n'est pas le Sénégal qui perd pour moi c'est le joueur qui perd ndax joueur yi nga xam yépp yëpp nañ Sénégal dem ci yenen yeneen équipe di jouer à exception près bo ci génnee jamono ñom Vieira ban joueur ngeen ci gis jamono ji tay mu réussir je ne dis pas que le Sénégal le a apporté euh, malheur wala genre yoy noonu Sénégal jugu mais moy lool mais pour moi aujourd'hui joueur bi nga xam Sénégal war na ci gëna mëna taxaw am ci yaakaar moy ki nga xam mom moy Boubacar Camara parce que Boubacar Camara woowuñu ko équipe nationale espoir woowuñu ko équipe nationale A Boubacar Camara actuellement mi ngi jugee France day jugé français saison bi peut-être même Espagne ndax ñu ngi ko Atletico de Madrid mais Boubacar Camara Coupe d'Afrique bam mu jeexee ñëpp gis nañ ko ni mu def comme yeneen joueurs yo xamné muy Eliman Ndiaye muy Lys il y a également d'autres joueurs hein ay ñom Malang Sar ñooñ ñom boy set ils sont dans la dynamique de venir au niveau de l'équipe nationale du Sénégal pour man ils la wara intéressé wu si Sofiane vient benn plus la ci ñun s'il ne vient pas ben moins la ci mom je le dis ben moins la ci mom ñun bu ñëwee duñu wañi duñu yokk plus les doon également plus parce que sans avec lui le Sénégal avance Sénégal mi ngi def mais aujourd'hui pour man bu euh, priorité et attention nous avons wara priorités nous à le ko boss instant yi nationale du Sénégal sinon le Sénégal waratul dem di ça moi c'est la perception que j'ai comme je le dis encore une fois si Sofiane Diop dina également ce n'est pas grave mais la dynamique de l'équipe nationale du Sénégal c'est quau delà même des billets nationaux, nous joueurs ramener. xam ne lañ leen formé on a vu Sakho bi Simba on a vu euh, comment dirais-je on a vu également Samba Diallo y a yeneen joueurs yoo xam ne gisuñu Formose Mendy John Lopi, hein, ah, Badji entre autres yeneen joueurs en tout cas les gars c'était les informations woy leen di like woy di abonné